jërëjëf mu ngi noonu dem nañu ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy promoteurs yi waxtaan na nañu gis nañu ci ñoo xamante ne nii nee nañu d'accord nañ ci li ñu def ndax wax nañ ko guerre mondiale sax ci waxtaan la mujj waaye gis nga loolu nga xamante ni noonu la waxtaan waaye ñu ngi ki nga xamante ne ni moom mooy Bira di président CNG Bira maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. am nañ mbégte jàkkaarloog yow ci 2STV. am fas yéene amal waxtaan mi nga xamante ni moom moo amoon sànq muy seen diggante ak promoteur yi lépp njaboot gi la. waaw lépp njaboot gi la depuis ñett ba ñeenti fan njaboot ji am lu mu doon euh, ñaxtu am daal euh, loo xam ne daf ko yittiloon euh, mu sàkkoon nag mu recevoir leen ngir ñu waxtaanee loolee mu nekk maanaam mesure yu bees yi ñu jël. mooy euh, teel a commencé làmb ji ndax mu teel a pare alors ñoom ñu gisoon ne xëy na mënoon nañoo wàcce heure bi tuuti te duy tere ñu teel a pare ñëw nañ aussi ay xalaat yu rafet ñëw nañ ak seen proposition yoo xam ne moom la ñuy étayer ñoom seen euh, demande bon bi ñu ñëwee nag ñu aussi wax nañu scientifiquement li mën a nekk. war nañ leen ne heure boo ko commencé et que combat yëpp dem à terme da nga jéggi heure bi ñu wax sax ñun mais comme boo defee étude scientifique da nga gis ne amul benn journée boo xam ne mel na noonu am na ay minutes yoo mun nañ kaa récupérer ñu ne kon loolu mun nañ ko xoolaat tomb bi nag ñoom ñu doon ñaan ne pour ñu may leen trente minutes yoo xam ne dafay dugg ci battement wala boog ci commencement euh, journée bi alors euh, bi ñu ko xoolaatee xool également ci mouvement journée yi xool combat ni ñuy jeexee ak ni ñuy yooy euh, temps yi ñuy am ñu gis ne effectivement trente minutes ñu ñaan mën na ne ñu ne boo léegi kon danañ leen ko may Euh, puis euh, ñu doxalee noonu mais terewul heure bi ñu waxoon ne ci la ñuy siffler combat bi maanaam au plus tard dix neuf quinze boobu loolu moom dara changé wu ko dara toxalu ko ak heure bu ñu munti démarrer bu dee seize heures quarante cinq la combat bi moom munul bu siffler ko mënul romb mënul génn dix neuf heures quarante cinq donc loolu mooy rek li nga xam ne euh, ci teel appareil bi la bokk comme génn génnuñ ci fourche suñu fourchette daal. ñu ne bon léegi kon may nañ leen 16h45 ci la premier combat di commencé waxuñu solo ci lañ koy siffler mu commencé mu door 16h45 donc là vraiment foofu moom bu ko commencé eh, ci suñuy calcul gis ñi am xam nañ ne incha allah rabi balay 19h un quart dana fekk vraiment euh, grand combat bi mais mbër mi nga xamante ni dem nañu ba nga xamante ni disqualifié ko mbër moomu noonu lan moo ko ci mën a fekk. non disqualification foo ko dégg rek xamal ne kooku moom d'abord day perte reliquat ensuite dana ñëw commission règlement et discipline ñu entendre ko et puis am ay yeneen sanctions yu bokkul sanction financière yi voilà day am sanction administrative yoo xam ne dañuy tegu ci ndoddam waaw. am na ñu ci bëri dañ ni bu ñu sañoon dañuy bàyyi ba saison prochaine règlement bi doog a ñëw pourquoi Bira Sène jékki-jékki rek ñu ne règlement bi ñëw na. waaw mën nañu xaar ba saison prochaine mais est-ce que yow bu fekkee ne eh, dañ laa jam fenn muy nàcc da ngeen damay xaar ba hôpital rek ma doog cee dara est-ce que amoo droit ngeen xaar ma tëj ji comme ça euh, sañe bi sañe bi au moins mën a arrêté non c'est pas comme ça en vérité li ñu bind yëpp nekkul lu bees tàq lii réglement la règlement la lii réglement la moo tax man leen circulaire bii nii. dafay dooleel bi ñu defoon en deux mille vingt vingt et un deux mille vingt deux du lu bees ci circulaire boobu aussi dañ ko sukkandiku woon ci règlement généraux yi rappelé naa ko promoteur yi sànq donc nekkul ne dañoo toog ba heure bi dañ ko rappel dañ ko maanaam dañu fàttali nit ñi ne règlement bi lii la wax léegi ñun nag léegi lii dañ ciy waxaale lii pour que ñëpp tënku ci maanaam teel a bëre nit ñi bàyyi aussi boo duggee ci ci ci ci digg làng gi yàgg fa ak say butéel ak say say lépp say bagage cumukaay yooyu yëpp dañ ko assenir waaw donc dafa am lu bëri loo xam ne def ci ñëw ñu fàttali ko nit ñi ne nag léegi désormais nii lay demee boo ñëwutee ñu forfait la jàll ci leneen boo ñëwee nag vraiment nga bëri abal ñeneen ñu bëri rek donc fi mu ne nii nit ñi dañ nekk euh, am na koo xam ne moom la jëli mbëri yi micro yi aussi ñoom ñu ngi fii chaque fois su nit di sëgg ñu ne ko ñii ñoo sëgg ñii nañ préparé ñoo ci topp bu ko defee itam ñu dégg loolu dana am conseil un agent de liaison boo xam ne daf fi nekk bu ñuy sëggee mu ne wax ñu ne eh pare leen ñi buñ génnee yéen la bon gis nañ nag bañ circulaire bi génne bi léegi aussi mbëri ñu ngi leen di gërëm leen sant parce que ñoom quand même ñu ngi topp circulaire à la letre moo tax démb vraiment bi ñu fay euh, manager yi dagguñu daanaka dagguñu benn mbër parce que amul benn pénalité boo xam ne mun nañ leen ko euh, gàcc donc moo tax ma ne gis nga fàttali dafa baax mais aussi di réglementer dafa baax également parce que lamb ji nag duñ ko bàyyi mu sooxee noonu duñ ko bàyyi mukk ñu naan waaw lamb ji nii la mel nii la non non non dañ koy teg ci yoon ñu tel kaa tëgg tel kaa pare teel a ñibbi loolu la moo ci nekk alors promoteur yi may leen trente minutes trente minutes yooyu amul problème maintenant dañuy gérer te téye ko fu ko téye woon rek wala en tout cas dix neuf heures euh, quarante cinq moom premier combat day démarrer. waaw ah, day démarré xale yoo xamante ni takku Baye Mandione ñu naan ko euh, Baye Mandione junior ñu ne ñu ne dañoo téeli li kaam euh, dafa ameel promoteur bi euh, combat est-ce que loolu c'est réel non xam nga d'abord Ada Fass dañ ko aj am na ñu ne dafa yor tamit aussi ay ay avance su promoteur kan moom Ada Fass loolu nag wóoruma gis nga lu ñëwul CNG CNG du ko toppatoo parce que réglement dafa tere nga am double engagement dafa tere nga am ñaari engagement maanaam yor avance kii yor avance kale loolu bu ñu koy def xëy ñoom dañ seen biir ci suuf loolu nag ñun vraiment ñun toppatooñ ñu ko alors euh, amel combat loolu eh, defoon nañ appel ñoom waa Baye Mandione Junior defoon nañ appel appel boobu saytu nañ ko effectivement génn nañu combat boobu ñu waxoon ne daf ko amel loolu moom vraiment génn na ci. voilà mais yeneen yi nekkoon ci PV bi yëpp vraiment mu ngi ci sauf n'est-ce pas waayu rek ça y yooyu yëpp ça hmm. mais ñu ngi lay ñu ñu ngi lay sant di la gërëm duñu la teel lu yàgg parce que liggéey bi mu ngi fi euh, ban message tamit ngay jàllale ci promoteurs yi nga xamante ni waxtaan ngeen ba juboo euh, ak axlu làmb waaw euh, di gërëm sant axlu làmb di gërëm promoteurs yi nga xam ne ñoom ñooy. indi seen xaalis seen alal di ko investir ci làmb ji ñu doon ooyee les bailleurs au di du di du promoteur d'abord alors leen di encourager nag nen ne gis nga euh, commerce moo mel noonu rek dangay ngay perte da ngay gagner ne leen di leen wax rek ne ñun li ñu def nii c'est pas que ñu def leen pour buntu xataal leen non pour ne ay jafe-jafe non dañoo bëgg rek làmb ji gën a jaar ci yoon ñoom ñu tëgg mu leer ñu am jàmm CNG am jàmm ak làmb yi am jàmm Sénégal am jàmm ndaxte bu ñuy tëgg ay làmb fii muy guddi yi eh bien danañ dem bi finalement dañuy kenn xam lu muy nuróol te loolu du kenn ndax xam nga police ak gendarmerie yi nga xam ne ñoom ñooy ñuy dimbalee di ñu accompagner pour ñu tëgg suñu làmb da daa ñu dem ba finalement ñoom xëj na danañ gis ne dañ di sonal suñu làmb yi naam sax ñoom c'est des professionnels loolu dañ ci fekk danañu accompagner ak lu mu tam nañu accompagner pour ñu teg suñu làmb mais waruñu may lépp ñu jël lépp te nag ci réew lañu nekk boo xam ne dafa organiser te dañu wax ne dañ gérer làmb ji lii nag dafa dugg nag ci gestion làmb moo tax ma ne promoteurs yi ñoom nañ gurgurlu te di waxante li ñu war a waxante seen biir ak seen diggante ak mbëri seen diggante ak ak seen diggante entraîneur yi CNG fi mu taxaw du fa jóg dana taxaw pour réglementer réguler làmb ji lépp jaar yoon incha allah rabbi donc vraiment maa ngi gërëm ñëpp wax lu làmb parce que euh, njaboot jee yaatu lu comme ni ko waxee lu màgg yaatu c'est vrai mais nañ xam ne ñun ñoo bokk mbir mi et puis ñu jéem ci rafet njort et puis di xalaat di jëf lu ko jëmale kanam. jiite CNG yomb na. waaw yomb na amul problème en tout cas. waaw bëri na coow amul problème. <laughs>